aljuma yemoo ko ñaar fukki fan ak ñetti weeru juin atum 2023 mbokk yi safoo programme yi Sunugal 24 bi simila ci xabaar yi la ci gën a fës dañu koy doore ak Juan Branco mi nga xamante ne bokk na ci avocat yi layola Ousmane Sonko moom nag da doon janoog taskatu xabaar yi démb ngir xam ne dossier bi nga xam ne nee na koy yóbbu foofu ci kanamu cour pénal international teñeel ki nga xamante ne moo di nguur bu Sénégal moom nag def na ay révélation yu ama am solo daanaka sax ci nguuru Macky Sall ak ñenn ci nga xamante ne ci famille nguur gi la ñu bokk biram fay moom nag euh, ministre la ginnaaw conférence de presse ba nga xam ne Juan Branco defoon na ko daf ko daal di lim ci ñenn ñi nga xamante ne da doon nekk di euh, ut ay nervi pour ñu jaamaarloog way manifesté yi moom ministre bi nag daanaka nee na dina porter plantique ki nga xam ne moo di Juan Branco pour diffamation groupe Walfadjri mu mel ni Cour suprême daf ko daal di bañal recours ba nga xamante ne dugaloon dugaloon na ko ginnaaw ba ñu daggee seen signal boobu euh, ci diirub benn weer le regard lañ koy daldi ndax keppee xibaar yi daal di buur bàkk ba jipp ñu faram fàccee. Juan Branco bokk kenn ci ay yi nga xam ne ñooy layool leaderu moom nag da doon janook taskatu xabaar yi démb ngir indi ay leeral ci boobu la mbir la mu xam le sax mooy lu toll ci 104 tonnes arme ki nga xamante ne moo ci euh, njiitu réew mi wala sax gouvernement bu Sénégal daal dina koy indi fii ci réew bu Sénégal ngir ñi nga xamante ne euh, ñoo di waye ñi nga xamante ne ñoo di nervi daal di koy utiliser ngir jàmmaarloog xale yi nga xamante ne ñooy manifester ci moom bu sukkandikoo ci moom nag ki nga xamante xamante ne moo di Juan Branco nee na benn xaritu nga xamante ne moo di njiitu réew mi Macky Sall moo daal di recevoir sax wala sax euh, mooy euh, moo waaye wala sax mooy daal di lijjanti yooyu la mbir di wuyoo ci turu Gabriel Prez yenn ci armée ya sax ma nga la mu xam le mooy ma nga foofu ci aéroport Léopold Sédar Senghor ñu daal di denc ca Russie sax la daal di jóge bu ñu sukkandikoo ci moom am na itam benn société boo xamante ne foofu la nekk ci Nord Foire ki nga xamante ne moo di doom ci Macky Sall di Amadou Sall euh, xaritam moom boobu la société société société boobu itam réceptionné na ay armes yoo xamante daal dañ ko fi daal di indi ngir ñu jàmmaarloog wooye manifesté yi ginnaaw janoog taskatu xabaar yi doon amal moon Juan Branco nekk yenn ci ay avocat yi nga xamante mooy layool njiitu Pastef bi di Ousmane la mu xamle woon daal mooy dafa am ñenn ci ay ministre yoo xamante ñooy tànn nerveux nga xamante ñoo war a jàmmaarloo manifesté euh, mu mel ni Biram Faye génn na tontu ko moom mi la auprès xamante ne moo di Juan Branco ndax ko waxal la dara amu euh, mbirum sax diffamation la nee na daal dina ko daal di topp bu ñu sukkandikoo ci RFM bi nga xamante ne moo joxe xibaar bi ginnaaw recours ba nga xamante ne groupe Walfadjri bindoon na ko daal di koy jébbal Cour suprême ginnaaw ba ñu euh, coupé seen signal ci diirub euh, benn weer ñoom naka daanaka moo mel ni Cour suprême dafa mujjee rejeté seen boobu recours ndax dafa jàpp ne daal mbir ma amul benn solo te sax daanaka léegi weer boobu jot ñu daal di leen di delloo seenu signal fàttali rek ki nga xamante ne moo di groupe Walfadjri benn fan ci weeru juin lañ ko daal di tëjoon jàpp benn fan ci weeru juillet ci fàttali rek nag dañoo daal di defoon benn vidéo wala sax direct Euh, di wax ne foofu ca Ziguinchor militaire yaa nga génn di jàmmaarloog xale ya bu ñu sukkandikoo ci nga xamante ne moo di Abdou Karim Fofana loolu la xamle woon. benn ku góor la ñu fekk mu ñàkk bakkanam foofu noonu ci wetu université bu nekk foofu ca Bambey bu ñu sukkandikoo ci Seneweb bi nga xam ne nag euh, moo joxe bile xibaar ki ñàkk bakkanam daanaka jotuñu ko identifié waaye xibaar yi ñoo jot a jot dañoo njortu ne daal xelam dafa naqari woon kooram nag mu nga foofu ñu yóbbu ci hôpital régional bu Diourbel daal di def autopsie ginnaaw loolu itam dinañu ubbi ab l'enquête ngir indi ay leeral ci boobu le mbir benn directeur école bu siiw dëkk foofu ca Géejawaay quartier buñ naan Sam Notaire moom daal la ñu jiñ ne dafa sàkku ñaari xale ñooñ sax ay seex lañu te ay doomu frère lañu ci moom la ñu nekkoon ci noonu daal la doon profité ci ñaari xale yooyu daal la nekkoon euh, di sàkku professeur bi nga xam ne sax moo leen di jàngal moo nemmeeku ne jamono ji daal seeni ay notes dañuy daal wàññeeku ca noonu la laajee ñaari seex la benn papa bu ndaw moo leen doon daal di sàkku ca noonu la professeur ba daal di dem clamé ci kanamu action éducative milieu ouvert ñoom sax ñoo ko daal di jébal ki nga xam ne euh, moo di procureur de république ba tax sax ñu daal di ubbi ab l'enquête ca noonu nag xale ya ay gynéco jot nañ leen saytu kenn ka moom nee nañu daanaka dañoo yegg ca kawam ka ca des nag daanaka papa ju ndaw ju ay attouchement la doon daal di amal ci moom ginnaaw manifestation yu ñu bëggoon a amal te mooy waa F24 bàyyiwuñu benn yoon ci wàllum troisième mandat bi tam wax nañ ci la ñu xam daal mooy troisième mandat bi du dara lu du tentative coup d'état constitutionnel ndax njiitu réew mi Macky Sall constitution bi waru may benn yoon muy daal bokk ci élection yi nga xamante ne la ñu daal di dëgmal ca naka noonu nag la ñuy lu bokk na ci blocus ba nga xamante ne def nañ ko ci kër Ousmane Sonko te tegewul fenn li mel nag wax ko te bëgg nañ itam ca noonu ne a gaawee ñoom daal nee nañu dañoo bëgg ñu màggal li nga xamante ne moo di 23 juin bi ci jàmm ak salaam waaye itam wan nguuru Macky Sall ne dañu nangu benn yoon ñuy salfaañi réew mi. yéenekaay bi di Le Regard lañ koy daal di ndax keppe moom mi xëy fasal ci naataalam bu njëkk njiitu réew mi Macky Sall ak nga xam ne moo di Khalifa Sall maanaam dialogue ba nga xamante ne am na kaa yoo am solo yoo xam ne daal dinañ ko ci réglé muy kaawu Karim Wade ak nga xamante ne ah, moo di Khalifa Sall dañu daal di mën a bokk ci falu njiitu réew mi nga xamante ne moom la ñu fukki fan juróom weeru février atum 2023 ci page 3 bu yéen kaay bi di lire également comme liñ leen ko doon waxee léegi ci xabaar yi Juan Branco daal nee na pare na taxaw na temm ngir yóbbu dossier bi ci kanamu OCP ndax nga xamante ne moo di nguuru Macky Sall la muy def mooy crime contre l'humanité Aïssata Tall Sall itam mel ni ku koy tontu nee na daal ki nga xam ne moo di Juan Branco amul xel la mu def amul euh, benn njëriñ dafa sax daal di ki nga xam ne mooy di Mamadou Lamine Massaly ci page 7 bu yéen kaay bi di lire daanaka daal lu mel ni xeme la ci yekk nga xamante ne moo di Adama moo fay euh, nekk goro ci njiitu réew Macky Sall ndax daf ne daal warul am nga xamante ne moo di troisième mandat ñu wax ci mbiru Karim Wade ci page 4 bi mën ngeen faa fekk moom naka daanaka avocat koy layool nee nag nga xamante ne moo di Karim Wade nekk na électeur te tax te sax dafa daal di éligible depuis euh, nga xamante ne moo di 21 août 2020 ñu doon bàyyi xel fii ci Sunugal 24 li leen indiloon ci xabaar te daje suba incha ci seen yeneen